na bon mooy di wut ay galgal parce que ñoom fi ñu ko yaakaare woon pour mën a repousser élection yi amuñu ko mooy dañu defoon ne bu ñu tëjee Ousmane Sonko réew mi tàkk ndax loolu la ñëpp waxoon waaye yàlla dogal na nit ñi am dal am dal parce que xam nañ ni boo amee dëgg doo am benn problème dëgg googu jox nañ ko ko Ziguinchor joxaat nañ ko ko ci tribunal d'instance bu dakaar lu ni fàng nag kenn du ko jeex loolu dafa wër-wërloo bi dafa war a dal dafa war a dañ ñu jox ko dëggam jox ko dëggam jox ko chance am parce que yàllaay maye. donc loolu ci réewu jullit bu day ni ñun yaakaar naa ñi gën a jàng gën a xam bu ñu ragal a wax il faut que ñu génn wax ni yàlla rek a fi nekk et nag na wéeru ci yàlla te doxal dëgg.